تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di dalal bés ni tey ci bërëb bu tedd bi màgg bi bërëb boo xam ne nii bërëb bu xam-xam la ak xarañ di leen wax di leen wax marhaban wa ahlan wa sahlan di leen dalal jàmm Euh, ci bërëb yi nga xam ne Serigne Mamor ci innovation yi nga xamante ne def na ko pour tabax doomu aadama defal ko xarañte présentateur bi wax na ko dèjà nga xam ne li Serigne Mor Mourtala tabaxoon yem foofu foofu la tàmbalee continuer ngir mën a former ay nouvelle génération dañuy màgg bu ñu ëllëgee ñu mën a demal seen bopp ci seen xarañteef àndaale ak seen diine ak seen ngor ndax nit ki balaa ngaa gor ñu gore da ngay gor ci dara su ko dugal na ko ci nga xam na nii li fi sëñ sëñ Moutalla mu apporté benn pierre ci édition moom nga xam ne da dañ xamante ne yokk na nag da innovation yu am mag a mag yu am solo moom mooy université Cheikh Ahmadou Bamba moo xam ne ak ses démembrements yi nga xam ne ñoo nekk à travers le Sénégal Dakar moom lay Saint-Louis et ak yeneen yi nga xam ne incha allah ñu ngi koy ñaanal wër ëllëg incha allah région yëpp mu nekk nga xam ne ay nouvelle ay innovation yu bees toujours da ciy am mooy doomu aadama bi day jàng am xam-xam ànd ak diinam ak ngoram mën a am formation bu baax boo xam ne nii sëñ bi toujours day wax ne ay imam yoo xam ne dañuy mujj doon ay ingénieur di euh, euh, mën a demal seen boppam kon jërë ngeen jërë ngeen jëf ñu sant di leen gërëm bu baax waaw ñu ngi ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko ziar di ko ñaanal yàlla may ko wér mu yàgg fi loolu ci wér man maa ngi tudd Mademba Diop nekk Mbour nekk producteur di liggéey ci maraîchage ak arboriculture. waaw partenariat bi ñu am ak UCAB nag euh, Serigne Saliou Bopp bi nga xam ne professeur la fi chercheur moom moo ñu fi dugal moo trois ans ñu ngi am euh, collaboration ak ay étudiants yu nekk fii di leen jël di leen dugal ci ay ferme ñi nekk ay stagiaires man ci sama bopp am na ñu ma ci yor mais li ma ci dolli rek mooy euh, étudiants yi ma yor ñu ma jox ak ñi ma yóbbu ci ferme yi yëpp benn remarque lañ ci def ñëpp ànd ci mooy yar bi ñu àndal yaru nañu et puis jub nañu te loolu lu ñuy apprécier la donc day rejoindre li baay Malick doon wax rek mooy defar nit ci boppam moom la sëriñ bi di def te loolu bon ñu ngi ñaan yeneen institut de formation yëpp roy ci loolu bon bu weesoo loolu aussi ñu ngi leen di woon ne dinañ leen dinañu gën a jàpp ci liggéey bi gën a collaborer ci wàllum euh, partenariat boobu collaborer ci dugal leen ci ferme yi ñi ànd liggéey jàppale xale yi ci njàng bi loolu daal laa. di jël nuyoo bi di ko jiital ci loxo kilifa bu sell bi ci suñu ginnaaw muy sëñ Mamour Moutada. di ko ñaanal mu yàgg si loo te wér bi ñu fi jógee ñu nuyu madame le préfet monsieur le maire honorable député ak tous les 12 maires yi nga xam ne ñu ngi ci département bi te ñëw teew fii tey waaye itam du ñu fàtte kilifa yi nga xam ne ñu fi teew te sant Mbàkke wala nga sant ñeneen ñëw jàpp jàppale seen bi ci liggéey bi ñu leen di jox seen wàccuwaay bu baax di leen ziar di ñëw nag tey comme ni ma ko waxee ci ñaari casquette ndax invité dañu ma en tant que haut conseiller des collectivités waaye ma ñëw représenté en même temps président conseil départemental de Bambey euh, ñuy kontaan bu baax sëñ bii ci liñ fi gis tey comme ni ko ñëpp waxee rek ndax lu am solo la ndax comme ni ñëpp wax rek dama ci jaaraat ndax bu njëkk man am naa ay arabisans sama kër yoo xam ne sama kilifa lañu te defe naa xam nga leen bu baax a baax bu njëkk li doon am ak léegi li am ndax ku ñëw ci université bi sa xel day dal sa xool day sedd euh, ñuy ñaan yàlla gën a yokk bu baax a baax may wax ci turu président conseil départemental ne ñu may lay tàllal loxo bu baax ndax ay nouveau élu lañu euh, yàgg bu ñu jël chaise bi waaye ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam gunge la ci liggéey bi jàppale la ba lépp lu nga xamante ne soxla nga ko ci suñu wet rek ñu taxaw ci. loolu mooy kàddu yi nga xamante ne dama ne woon dama ko fi yëkkati waaye sama xol sedd parce que ma dama bëgg mbay ma gis fi lu am solo mais ñaan nag lii mu bañ rakk parce que journée porte ouverte bu na. mais nit ñi di leen sensibiliser itam ay week-end bu ñu amee jot ñu ñëw gis li seen bi def di ko gën a yaatal ci département bi ak ci commune bi nga am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci biir dëkk bi waaye xamuñu liggéeyu seen bu mu am kon rafet na ñu gën ko yaatal ba ñëpp gis ci seen bopp ñaa ngi jéggalu kàddu yi bu baax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah may nuyu itam délégation ma àndal yëpp muy Saliou Fall di CC bi ak euh, Mamadou Ndiaye maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu également tous les étudiants yi fi nekk di wax ne journée porte ouverte yi wax dëgg yàlla tey mooy première édition bi mais li ci seetlu rek te remarqué ko te yéen ñëpp gisandoo ngeen ko ak man mooy di ne bi ñu demee ci terrain bi di ko visiter defe naa yéen ñëpp waa Bambey ak képp ku fi teew am nga surprise agréable ci li nga gis tey. ndaxte loolu c'est méconnu Bambey waaw maanaam waa Bambey li ñu fi gis tey visité ko xamuñu ko woon mais tey jii ba ñu demee visité ko gis nañ ne lu am solo la loo xam ne mën naa ne coppite la bu am ci enseignement arab ñu ñuy innovation ndax bu njëkk umplewu leen leen bu njëkk étudiant arabe bu mësaan am baccalauréat li muy xalaat rek mooy dem yeggale yi njàngam extérieur ñu gis ne bu demee extérieur yeggale jàng bi bu ñëwee dafay mel ni dañ ko defal lavage cerveau maanaam dañ dafay mel ni dañoo euh, soppi daal li la ci boppam avant muy génn ci dëkk bi maanaam dañ ko formaté léegi nag sëriñ bi xam naa ci xelam ak xalaatam bu sell ne loolee daal mu def yi pexeem ba nga xam ne tey jii université bi boo amee bac arab ci dëkk bi ci Sénégal jaratul ngay génn di dem bitim réew di ko mottalee am njàng defal na leen fi loo xam ne boo amee bac mën nga toog fii ci université bi am même lijaase yi nga xam ne littéraire yi ak yeneen université yi moom la ñuy am ak enseignement professionnel yi métier yi ñuy am bu ñu amee bac def formation ba ñuy am ci njàngum nasaraan bi boo toogee fii ci université bi di ko am mu di innovation mu di changement bu am solo boo xam ne sëriñ bi apporté na ko ci njàngum arab ci Sénégal notamment ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi kon nag loolu ñu koy rafet la bu baax a baax di wax na loolu ngëneel la ci suñu doom yi jàng fii ndaxte université bi bu ngeen ko seetloo li ñu gis tey mën naa génne façon bu nekk produit bu nekk université mën na ko génne bu nasaraan bi génne ndax boo fi génnee dinga am métier di nga nekk ingénieur mën a liggéey comme littéraire yi li ñuy liggéey bu njëkk boo jaagaan arab walla nga am bac arab boo génnul dem bitim fii ngay toog pour yow njàngaleem arab boo amee bac li ciy topp rek mooy ubbi école jàngale mbaa ngay tafsir mbaa ngay dem ci jàkka ja di tafsir alxuraan mbaa ngay takk sëy ak tudd doom bu njëkk dañoo yaakaaroon ne njàngam arab foofu rek la mën a yem waaye gis nañ tey coppi bu fi am teg ngeen seen bët lii fi am tey def naa ne yéen waa Bambey bett mais agréablement la leen bett maanaam bànneex la leen bettee muy tekki na kon ah université bi macha allah tegu na ci yoon woo xam ne bi ci ñëpp jàppee dana mucc ay te li ñu wuti extérieur après le bac arabe léegi am na fi jaratu ñuy génn di wuti dara ndax li fi nekk mën na former étudiant bi après le bac former ko ci bépp pratiquement métier ba nga xam ne dootul sax na jàng jàngi jéggaan yi di jàngi extérieur kon nag loolu innovation la bu am solo boo xam ne sëriñ bi apporté na ko ci njàngam arab mi ci Sénégal en particulier fii ci Bambey ci El Azhar kon ñu ngi sant euh, yëpp di sant assistance bi di sant ñëpp di leen wax ne ah wax dëgg yàlla macha allah li ñu fi gis tey dal na xel ah, ñu ngi ñaan suñu borom rek mu pérenniser ko bi nga suñu borom may ko eggale liggéey bàyyam bu tedd ba sëriñ Murtala Mbàkke bi jaar a sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf